le géant di Cap-Vert Xeweul Ngor Konia 2 arbitre na leen ba xam pare ngeen Xeweul Ngor moo ñu woon ginnaaw Konia numéro 2 la ñu jàkkaar lool ñoom ñaar mbokk yi ku ci nekk ci defen nga jóge ki nga xamante ni mooy Xeweul boo Diop moo ko daan bu père bi am waaye kii di Konia Ronaldo ñëw moo daan ñoo ngay lewaatoo bàyyi ji xeer ngor wàcc na ba toll ak Koña. Ousseyn Ndiol la ak Ndama. Koña de xeer moo ko sut. waaye Koña Ndama la mais Ndama la ci combat bi ndax adversaire bi moo ko sut. mais ñoom ñaar ñëpp ay mbër mbër lañ yoo xamante ne ay bërekat lañ. Koña de bëre la gën a mën waaye xeer ngor mën na bëre waaye xeex bi mooy avantage am ci combat bi. te bu bu doon maay xeer ngor. dinaa fexe ba Koña du dugg ci peesam ndax pite nga ca kaw xel maa nga ca suuf Koña yi xool yëpp. ci tànk yi la jëm Xeeru Ngor nag daa war a sàmm tànk yi fermer garde bi taxaw rek di déglu Konia fu ko fu mu yóndoo nga dugal ko xëy li nga bëgg mën nga ko am ci làmb ji. kon sama juumul mooy kii kii di Xeeru Ngor buy dóor na xool bu baax fi muy dóor ak na muy dóoree. loxo bi lay aj rek gis nga loxo bi lay aj rek moom Xeeru Ngor parce que Konia ci tànk la bëgg a dem boo ajee loxo bi nag génne ko mun ngaa mun ngaa am li nga bëgg gis nga dina ko daan wala déet Konia dugg na ci piège mënul rëcc xeeru ngor dafa am doole da koy daan daan na ko. daan na ko ko daan. bu wu lamb la. juróom moom la am daan na ko yaa. am na ko. déet déet bul door xeeru bëreel bul door bul door. da koy wan li ma yebee woon ba di ma daan daanu na daan na koo doole yemul Ousseyn doole yemul. Xeeru Ngor daan na Koña doole yamul Ousseyn doole yamul Ousseyn. Koña dafa yàqamti bëre bi. waaw dafa yàqamti bëre bi doon togg ñorul. daa doon na jël ku siif ko. dañ ma dañ laa nokk. soo de. ci biir nag parce que dafa am ku ma jege ah, ku bokkoon si man yàlla moom combat bi Arouna Samb laa ko may Arouna Samb mi maanaam moom ñu ngi ànd ku dee bëccëg yàlla na ko yàlla yërëm nee naa leen maa ko man gëmu ma sama place si lamba wallahi du fii si kaw te incha allahu rabbi dinaa jël roi des cool yëm si moom la mais man xam naa ne maa ko man te wan ko ne maa daan ko bëri wan naa ne bu ñu ma daan ko parce que bàyyi ñes dama mën a bëre te incha allah leer si lamb rek maa ngi si lamb maa ngi si lamb ñëw leen seet sama ñu waxtaan ah.